les deux personnes qui m'ont le plus marqué dans ma vie sont des femmes. Les deux personnes qui m'ont formaté, qui ont fait de moi ce que je suis, c'est des femmes. D'abord, sama yaay ma euh, c'est un peut-être j'en profite pour lui rendre hommage parce que je ne le fais jamais presque mais c'est une grande dame bon elle a beaucoup souffert pour nous beaucoup souffert je me rappelle euh, comme mon papa était un peu comme moi bi ko radié pour la deuxième fois de la fonction publique c'était en 83 ñu radié ko parce que wala il a été radié une première fois en tant qu'enseignant. enseignant boobu moom ak ay ñoom Cheikh Béthio yi ñoo nekkoon di jàngale ci àllu Casamance bi mu dugg ci clandestinité politique ñu radié ko alors après mu ñëwaat def concours ENEA cadre de Bambey génn en 83 pour une affectation qui refusait nous rajewaat une deuxième fois c'est une une tradition chez nous <laughs> Mine ça a été difficile évidemment parce que c'était un couple de fonctionnaires moins ma mère était assistante sociale pas bi animateur rural donc ça a été très difficile et il y avait qu'un salaire à la maison et plus tard, quand j'ai regardé le bulletin de ma mère, je me disais ça, c'était un salaire de fonctionnaire. Donc, elle a tenu. Et chaque fin du mois, sous Fayeko, ko day woo paa bi ba ci biir mu jël salaire bi jox ko ko ne ñuy xalaat ni man maay jënd ravitaillement ci kër gi donc soo suñ koy jënd ci boutique bi yow yaay dem jëndi et ma mère je ne l'ai jamais vu mu takk sax caq përëm waxuma la ay or wala ay bijoux yu demee noonu et pourtant c'était une intellectuelle génnee cadre de de Bang Wei a def et dans un environnement qui n'était pas facile parce que ku juddoo xombal Maggefa, fa Kazamas, dans les années 60... euh, avec l'écart culturel les incompréhensions qui ont produit d'ailleurs la crise qu'on connaît mais cette femme m'a beaucoup marqué te jàngaluñu lu dul liggéey jub doylu surtout doylu et jusqu'à présent elle me marque parce que ñi ñëpp xam nañ ko elle est imperturbable parce que man si j'avais une mère fragile j'aurais raccroché depuis longtemps mais lu munti am ak lu coow li bëri bëri bëri bëri ku ko wax ñaari phrase lay lay lay ciy teg euh, il suit son destin lu yàlla tudd noonu la elle ne dépasse jamais ça. Imperturbable. Et la deuxième, c'est ma grand-mère paternelle, qui était également une très grande dame. Elle s'appelait Fatou Bojang. On est rentré en Casamance en 82. Parce que moi, je suis né à Thiès. Ni Thiès là. Je suis bien bi ah, waaw saa Thiès là. Je suis weere ñoo bokk <laughs> donc euh, et quand on est rentré mom la fekk dañu ñibbisi mu ak nawet immédiatement mu yattal ñu kajandu xaw ma xam ngeen kajandu moy li joolaay di baye ne ne ne àll ba donc de 82 à 93 amul année bo xamné anduma ak mom dugg ci àll bi baye toute l'année mu yone une femme brave liggéey su joggé tool ya toog na ci taatu lampe bi di saf gerte dem jàkk ji julli elle était tout le temps de blanc vêtue et bi mu démé ba santine ni jege dafa ñew fekk sama yaay mu ne ko kadi dégguloon olof bu baax nag mu andi perkaalam mu ne ko man bu dee buggul kenn jënd tissu bi lañ may soulé donc elle n'a jamais voulu dépendre de quelqu'un de sa vie jamais et cette femme là également m'a énormément marqué dans ma vie jàngal na ma liggéey jàngal na ma njub et jusqu'à la fin de sa vie c'est ce qu'elle disait donc la femme, sur ce plan sentimental, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup appris des femmes plus que des hommes.